bon xamal leen li ma doon ak xam li ngeen di liggéey ñu xamante ñun ñaar pour gën a dimbali citoyen bi ci li ngeen di liggéey bu gisee li ñu bind ma xam ne lii mbind mu wóor la mën a gindiku daal parce que loolu encadrement sitoyen bi def ci am solo tey ku am sa téléphone journaliste nga ku ku am sa site web lu la neex nga wax ku mën a ku ku toog ci plateau tele loolu neex nga wax chroniqueur nga yooyu yëpp day réeral citoyen bi lii nuy def nii defuma ko parce que dama tànn au hasard dama xool ba xam ni jeune reporter yi toujours suñuy wax dañuy wax étique dañuy wax les fondamentaux vraiment de de l'information loolu moo tax ñuy tase ak yéen pour nouer un partenariat pour yu bëri buñ koy def man leen cee associé dans votre indépendance et votre impartialité ngeen gindi ñu man jaan jàmm laay ñaan parce que citoyen la jàmm laay ñaan comme ñëpp di ñaan ñëpp ñu tënku ci yoon di ñaan ñëpp ñu tënku ci yoon di ñaan ñëpp ñu respectante ñu dem ci élection yu dal ah ku gañe gañe wante loolu rek laa ci xam